Vendredi 5 août 2022 merci de votre fidélité à VF TV euh, bienvenue dans la revue des titres tey nag ñuy tàmbale ak journal bi nga xam ne mooy la tribune la tribune à sa une mu nekk quatorzième législature Macky Sall perd la majorité maanaam fi mu nekk nii élection législative yi ki nga xam ne moo di Macky Sall ak waa Benno Bokk Yaakaar amuñu majorité ba tey ci la tribune la tribune nag daal di wax ci mbiru si Ndour gannaaw nag bañ ko tuuma Soumaléné dafa doon sàkku ab gone bu ko doon liggéeyal te atam toll ci fukki at ak juróom-benn moom Sitor nag jamono yi ma nga ndungu si na fële ca Rëbës ba tey rek ci la tribune mu wax ci lëkkaloo bi nga xam ne Sénégal lëkkaloo na ko ak Guinée Bissau daal di jëm rek ci li nga xam ne moo di accord de paix ci diggante Sénégal ak MFDC kakafeelu nag nekk les échos les échos mu ne un pas de géant pour le retour définitif de la paix en Casamance maanaam jamono yi jël nañ ay jéego yu am solo jëm rek ci jàmm ñëwati fële nga xam ne moo di diwaanu Casamance foofee nag ca Guinée Bissau ki nga xam ne nag moo di a njiitul réew ma di président Embalo Sissoko moom nag daal dina yombal mbir ma ak amiral bi nga xam ne moo di Papa Farba Sarr Les Échos moom it wax na ci législative yi moom nag mu ne Benno Bokk Yaakaar à la recherche d'une voix maanaam fi mu nekk nii gannaaw bokk yaakaar amee ci lu toll ci quatre-vingt-deux députés waa intercoalition Yewwi Wallu am quatre-vingts députés mu des nag ñetti députés yoo xamante ni nii waxaguñu waaye it Benno moom soxla na rek benn voix ñu jóge ci les échos daal di ñëw ci l'évidence l'évidence nag daal di xëy rek ne cohabitation pouvoir opposition à l'Assemblée nationale Thierno Alassane Sall Pape Diop et Pape Djibril Fall euh, détiennent la clé maanaam jamono yi nag wure ba dem na këng ci ñi nga xam ne ñoo di Alassane Sall Pape Diop ak Pape Djibril Fall ñoom nag seen wax lañuy seetlu ana naka la ñuy taxawee. ba tey rek ci revue des titres yi ñu ñëw ci journal bi nga xam ne moo di l'observateur l'observateur daal di xëy titre Moi, député, nouveaux élus de l'opposition, euh, l'histoire inconnue de neuf visage de Yewi investis sur la liste des suppléants. Ils racontent la surprise de leur vie maanaam nag ay député yu bees toll ci juróom-ñeenti député yoo xamante ne nii daanaka kenn xamaguñ leen te ñu investiroon leen ci liste Yewi askan wi ñoom nag ña ngay nettali. mbetteel gi nga xamante ni nii am nañ ko gannaaw nag ba ñu leen fale député ba tey ci l'observateur Thierno Alassane Sall moom nag ma nga cay wax ne fi mu nekk nii moom ma nga ca biir opposition bi te it dara du tax mu daal di fay jugee ba tey l'observateur daal di xëy daal di bind jëm ci autopsie médico légale immersion dans le quotidien macabre des médecins légistes maanaam ñi nga xam ne ñooy yëngu ci di def auto autopsie yi gannaaw bu nit faatoo loolee nag l'observateur xëy daal di ciy bind lu am solo ba tey rek ci l'observateur mu ne de nouveaux prélèvements sur le corps de François Mancabou maanaam nag garde du corps bi nga xam ne moo fi décédé woon na moom nag fi mu nekk nii ba léegi ña ngay def ay prélèvement ci moom ngir jéem a xam ana lan moo ko faat ñu jóge ci l'observateur daal di ñëw ci journal bi nga xam ne moo di lii quotidien lii quotidien nag à sa mu titré onze journaliste du Soleil arrêtés la parution du journal Le suspendu maanaam fi mu nekk ni euh, ceew la nga xam ne ma ngay am ca journal Le Soleil nag tax nañu daal di ciy jàpp fukki journaliste ak benn ba fi mu nekk nii nag ñoom journaliste yi nee nan euh, journal bii di Le Soleil jamono yi yëpp duñu ko gis ba ñu régler problème boobu ñu ñëw nag ci quotidien sportif yi dooree ak sunu làmb sunu làmb nag daal di xëy ne combat Balla Gaye 2 Gris Bordeaux Max Mbergane politique tout peut arriver moom Max Mbergane nag nee na ci diggante Balla Gaye ak Gris moom nee na lépp mën naa xew kawo mën na am waaye it arrêt sur blessure mën naa am ñu jige sunu làmb ñëw ci record record daal di titre Bundesliga Francfort Bayern de Munich aujourd'hui à 18h30 maanaam tey ca Bundesliga bay am ca Allemagne Francfort dina janoo ak équipe bi nga xam ne moo di Bayern de Munich di équipe bu sénégalais bi di Sadio Mané ñëpp nag di xaar Sadio Mané ca boobule match ba tey ci record ki nga xam ni nag moo fi nekkoon journaliste sa RTS di Aboubacry Ba moom nag daal di nay prononcé wu ci CHAN bi nga xam ne moom la ñuy waajal moom nag ñëw na ci diggante Sénégal ak Guinée moom abu Aboubacry mu ne la paix Bangoura est le principal atout du Sili national maanaam xale bi nga xam ne moo di la paix Bangoura moom nag nekk nay yaakaaru équipe bi nga xam ne moo di Sili national nekk équipe national bu Guinée Conakry ba tey ci record record di ñëw ci Ligue bi mu ne tey ji a jàmbaarloo ak équipe bi nga xamante ni nii moo di Lyon ba tey rek ñu jeexale ak journal bi nga xam ne moo di stade stade nag daal di titre les Sénégalais de la Ligue 1 saison deux mille mille 2022-2023 Gana gay Bamba Dieng Diallo vers une saison de galère maanaam nag buñ deful nànk Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi yëngu ca Ligue 1 ba ca France saison bii di ñëw buñ deful nànk rek saison bu doy waar lay doon ci ñoom bokk na ci Idrissa Gana gay Bamba Dieng ak it ki nga xam ne moo di Diallo loolee nag moo nekkoon tey la revue des titres ñu leen di jaajëfal ci seen teewlu di leen sant di leen gërëm waaye it may sant sama technicien du jour Fallou moom moo ci jàpp tey ba liggéey bi yem ba jërë ngeen jëf.